aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tëdd leen ziare di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool ba may ko yéene yi nga xam ne moom la yéene liggéeyal maam ju baax ja Seexul Xadim mu defee ko na mu ko soobee waaye te mu ko ak mbooleem njabootuk Seexul Xadim gi yëpp bàyyiwuñu kenn mbokk yi dellu siwaat nañu ci benn ci jataay yi nga xam ne euh, moom la ñu doon def euh, ngir di ko waajale bis bu am solo bi nga xam ne moo nekk suñu kanam muy bisu màggalu ko isrina muharram euh, di bis bi nga xam ne moo dëppook euh, bis bi sëriñ bi ñu bisee woon ci dëkkam bu sell bi di Touba. ku ne xam na ne nag commission éducation culture bi ak communication bi dafa nekk ci waajtaay wi moo taxoon ñu amaloon ay jataay yoo xam ne e, jataay xam-xam la ak jataay yi fàttale ngir ñu mën ko jariñoo lii nag di benn ci jataay yi ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokkum taalibe sëriñ Massamba Sylla euh, fas yéene waxtaan ak moom ci thème bu am solo Euh, kon xëy na bala ñuy commencer rek dama koy jox mu nuyoo bala may annoncer thème bi euh, bu noppee ñu door a euh, tàbbi ci li nga xam ne mooy waxtaan wi kon sëñ Massamba ñu ngi lay nuyu bu baax aoudu billahi samii alalim <clears throat> min iblis alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala jërëjëf ñu ngi leen di jaar baax di leen nuyu nuyoo ba gën a matale ci lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di bég lool ci teew ci jataay bi e di sant bu baax a baax. jërëjëf sëñ Massamba e, ci nuyoo yu am solo yooyu dañuy dugg rek directement ngir njëkkante ak waxtu wi e, mu mel ne thème bi ñu jëloon mooy Serigne Touba Khadim Rasoul ak tasawuf Euh, fas yéene cee jukki tomb yu am solo ngir ñi nga xam ne ñoo ni bàyyi xel gën cee gën cee jariñu waaye li ci jiitu rek mooy baat bi lañ bëgg a xam baatub tasawuf boo ñu ko doon leeral euh, lan mooy baat bi. jërëjëf sëñ Badara baatub tasawuf baatub arab la waaye li ñuy wax ishtiqaaqu kalimatu tasawuf boroom xam-xam yi dañ cee wuute wuute bu baree bari Serigne Touba radiyallahu anhu eh, leeral na ko moom. ci masaalikul jinaan ci manzuumaam boobu e, di xamle ne tasawuf am nañu ne suffa lañ ci jublu muy e, ñaari téeméeri saxaaba ya nga xam ne ñoom lañ tuddoon ahlu suffa ñu daan yendu ca mbaarum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam jàkka ji dafa am mbaar mu demoon ba ci ginnaaw ñu doon ay xurabaa yi doxandeem dikk madine te amuñu fa ay bokk foofa lañ daan toog ku desal lekk indil leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit e, di leen dimbali moom it e, baat bi am nañu ne ci suffa boobu la jóge muy firi ab mbaar am na ñu ne déedéet mi ngi jóge ci safun bi firi sàppe am na ñu ne suuf la jóge muy benn tissu bu ñuy wax leen bu ñu daan sol am na ñu ne safun gii firi sell ci la baat bi jóge kon mu mel ne e, sëriñ bi waxaale na ne baat bi daanaka dem na ba àgg ci lu mat junni baat yoo xam ne e, borom xam wax nañ ci te kenn ku nekk la nga wax da nga koy indil ay lay yu leer a leer yu ñu rafetlu kon e, loola e, noon la noon la baat bi tudd muy indi nañ ci lu mat ñeent yi ci gën a siiw waaye teewul am na yeneen yoo xam ne comme ni ma la ko waxee jàll na ba ci junni ak lu teg sëriñ bi wax na ko ci masalik tu mashtiqaaxu kalimatu tasawuf muxtalifun fiihi bi aqwaalin tafi fa qiila suffatun wa qiila saffun wa qiila suufun qiila saffun faqfi wa qiila gayri di wa kullun minhum burhaanuhu mustaxsanun indahum aqwaaluhum fii ala alfin tazid e, taaddudan naa laha huna laysa yufid kon mu mel ne baat la boo xam ne bu bari e, ay wax la waaye nag mafhum mi ci boppam mafhumu tasawuf ak suufi inda cheikhul xadim baatub tasawuf ci boppam muy xam-xam bi ak ki ko doon ñu di ko woowe suufi eh, muy ki nga xam ne àgg na ci wusul eh, dafa am baat yu nirool yu baree bari te bokkuñu am na lu ñuy wax mutasawif mooy ki jàng xam-xam bi ba xam ko waaye di sóobu waaye àggagut am na ku ñuy wax bi ki leen di niru nirulu waaye am na ku ñu wax xaadim nga xam ne moom dafay liggéeyal suufiyanke bi rek kon baat la bu bari ay coowaay sëriñ bi ni mu ko leeralee ci istilaahiyan daf ne moom al aalimu al mustalzam al aamilu bi ilmihi xaqiqatan wifqa al kitaab wa mooy borom xam bi nga xam ne xam bi dafa tënku ci alquran ak sunna mu di ko jëfe dëgg te boole ko ku sell xam bi nag ba tey noonu it la xam la al ilmul multa mu mustalzim xaqiqatul amal wifqa al kitaab wa sunna daa nekk sorewuñ kon noonu la définiré eh, tasawuf mooy lan way ko ci mandumaam bi di masaalikul jinaan wal wal wal xaasilu suufi aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil eh, ki nga xam ne moom la ñuy woowee suufi mooy borom xam-xam bi am xam-xam bi dëgg-dëgg di ko jëfe su ko jëfee bu yàggee nag day mujj nekk ku sell ci ay nax-nax muy amraadul qulub feebar yi nga xam ne mooy feebari yi xol yi xolam day fees dell ak i xalaat ak i afkaar yu jëm ci borom bi subhanahu wa mu dagg nit ñi baleen jublu boromam waaye mu yamale milliard ak donji suuf mu yamale ab dinaar ak donji suuf diinaar bu ñu ko doon misaal sunu xaalis tey milliard lañ xam million nit nitu suuf yi dëgg mooy kooku kon fasaara saafiyan min al akdaari mumtaliul qalbi min al afkaari waaye munqatian li rabbihi min al bashar Euh, musawiyan diinaara aynin bil madar nga xam ne dafa yamale ay milliards yoo teg ci kanamam moo ay doon ji suuf la yamale xàmmewu leen kooku mooy suuf yi piir moo tax ca mujj ga mu leeral ko wa man yakun kadaka fa huwa suufi awla fa fadu daawan ala al maarufi nee na képp koo xam ne lii ma wax noonu nga mel kooku suuf suufi la waaye képp ku melut noonu nag di woote woo sëriñu suuf yi danga ko koo woote waaye doonoo ko nekkul nag nit ki lu mu woote rek loola la dégg dégg fil xaqiqa kon loola mën nañ koo tënk ci e, baatub e, tasawuf bi fi mu jóge ak yu mel noonu yëpp e, Cheikh jii Khadir ni wax na ci wax ju am solo nee na de tasawuf xam-xam la boo xam ne dañ koo tënk ci juróom ñetti jikko ba ca njëkk mooy saxaawu Ibrahim tabe gi yonent yàlla Ibrahim tabe woon ab suufi day tabe sëriñ bi ku ku jàng mbindam da ci gis lu mel noonu rida Isxaaq ngërëmul yàlla sabru li ayuba ayuba ni mëne woon a muñ ab suufiyanke day mën a muñ ishaaratu li Zakariya xurba li Yaxya nangoo tumuranke e, wa tasawuf li Muusa selluk Muusa alayhi salaatu wasalaam siyaaxa li Isa nangoo touriste nangoo tukki yonent yàlla Isa wal faqru li muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangoo ñàkk ab suuf yi day nangoo dund ak ñàkk ndax yoon sasam ak ñi ko wëroon lépp ñëpp ci loolu la leen yar moom ci boppam gis nga ko addi yi da ko daan wër ci min minbar bi ba du am fu jaar waaye bu day bu jógee day joxe di joxe ba du am lu mu yóbbu kër gi dégg suñ day Aïcha kër gi daañ toog ñetti weer cin du fi tàkk lu may ndox ak tàndarma doo nga fi am Aliou gis nga ko dafa ñàkkoon ba yoon sam tudde ko Aba Turab ndax suuf rek la tëdd néeg bi dañu ne si jaada wala basan gu ñagas a fa nekkoon benn bis euh, dañu ne Fatima da doon liggéey ci maxjuul mooy xaj ci li ñuy wax xottun wëtteen day dem day dem liggéey ci ñu fay ko mu dikk jënd ci dugub bëgg a togg laax togg ba pare waaye yàlla dikk yalwaan mu ne nañ ko jox lépp nga xam ne ñoom ñëpp ñi waroon yonent bi arrijaal xawlahu ci ñàkk gu metti liñ doon dund kon tasawuf euh, te mën a am lu ne nag mën a am lu ne waaw maanaam lu ne ba pare wan ko ginnaaw ndax loolu mooy dëgg dëgg dëddu kon baat bi loolu lañ ci mën a leeral eh, bil ixtisaar ci tënk macha allah eh, sëñ Massamba eh, li nga ci leeral am na solo dañuy bañ a xuus xëy na di ci indi indiwaat yeneen di lëndëmal waaye liñ ci mën a gën a jàpp rek comme ni nga ko waxee mooy ni ko ku tedd ki Seexul Xaddim leerale mooy boroom xam-xam bu sell waaye te tënku ci alxuraan ak sunna loolu rek danañu ci doy ak nam ko leerale ca waya macha allah ñu ngi lay jaajëfal ci ci ci ci laaj bu am solo boobu mel na ne eh, ku ko déglu di xam dëgg-dëggi baat bi eh, waaye nag ñu bëggoon jàllal rek ci beneen laaj mooy eh, lii di fiq ku ne xam na ne lu am solo la ci diine waaye war gi mu war a jiitu tasawuf bëgg nañ nga dellu suwaatal ñu ci Sëriñ Tuubaa dafa jàngale ci tasawuf bi mu incarné wala bi mu wootee xam ne nit ki mënul soobu tasawuf te xamul fiq ba pare xaqiida moom muy tawxid daa mënta ñàkk kooku mooy tax nit ki doon ab julit ba pare moo tax waaye fiq lay wax ne bala ngay sóobu tasawuf da ngaa war a xam xam-xamu fiq mooy lii tax nga mën a fiq ak juróomi ponk euh, juróom maanaam islaam ak juróomi ponk yu mu am dafay mel ne kon euh, islaam moo amoon waaye xam-xam bi koy théorie moom la ñuy wax fiq xadis omar yi la ca wàcc mooy imaan islam ihsaan imaan la ko jàngale moom la ñuy wax tawxid fi islam xam-xam bi ko jàngale moom la ñuy wax fiq ihsaan muy rafetal xam-xam bi ko jàngale moom la ñuy wax tasawuf léegi nag sëriñ bi moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne fiq daa war a jiitu bala ngay wax tasawuf nit ki moom tasawuf mënu faa nekk mukk te déggul fiq amul ab yóbbal bu doy sëkk ci fiq kon wujubu taqdimul fiq ala tasawuf moo tax mu ne ki nga xam ne dafa jiital fiq et ci tasawuf loolu mooy li war li war a am mooy loolu waaye képp koo xam dafa neenal fiq bu tasawuf nag ak sa jaamu yàlla ulama sharia dañ la àtte ci àdduna boo muy tut faat sa bakkan comme ku mel ne xalaat joxe nañ ci misaal ba mu ne maa yàlla sharia xamuñu loolu dañoo àtte rek fu xaay duñu àtte rey ko kon loolu la doon junj ñaareel ba mooy ñaareel bi muy tasawuf moom képp ku ko amul jullit bu amul tasawuf bu amul ixsaan boo demee ca sunu borom subhanahu wa taala da nga alku da ngay alku ca yàlla kon bii pour àdduna la waaye bii pour àllaaxira waaye ñoom ñaar ñëpp dañuy àndandoo pour àllaaxira dëgg-dëgg boo ko xoolee dañoo mënta ñàkk laazim ak malzum la li arab di wax laazimul benn mënu cee dem ba moroom ja kon sëñ Tuubaa lim jàngale mooy dañ leen di boole ñoom ñaar moo tax mu ne wa man tafaqaha bila tasawufin fa du tafassuqin sarixin fa arifi wa man yakun nag bi aksi da fa innahu ila tazanduqin eh, amaalu sha'nahu wa man tafaqaha wa tasawafa jamaa fa huwa alladi xuqa lahu an yuttaba nee na sëriñ bi ñu war a topp mooy bi boole fiq ak tasawuf ñaar yépp mu xam ko xam bu wér kooku mooy kee topp ku dul kooku kenn waru koo topp kon li mu jàngale foofu lu leer la waaye ci tasawuf ngay gis sëriñ boo xam ne dana suuf yi la ba pare xabla baada bu juumee ci julli sax mënu koo mënu koo defar xam nga ne loolu eh, iddaa lay doon woote ko lay doon waaye taxul eh, mu doon ko kon sëriñ bi loola la ci leeral muy lu am am solo kon fiq mooy jiitu tasawuf door cee topp pour nga bokk ci tariqa insilaak bu ca faw nga xam fiq ba pare door a jël tariqa ba wird ndax wird mooy la lay cay boole dëgg-dëgg aywa kon loolu lañ mën a leeral ci tomb boobu ci tënk ngir waxtu wi macha allah ci leeral bu am solo boobu ndax euh, bu fekkente ne dégg nañ dëgg-dëgg ni nga waxee mel na ne euh, fekk moom maam lu ne mën naa ñàkk moom des moom. te bu fekkente ne dox nga te yoroo ko daanaka mën naa lëndëmal sax xëy na yoon wi ngay dox ndax nit ñi mën nañoo bañ a xam dëgg-dëgg ci li ngay dox waaye bu fekkente ne moom nga doo am jafe ci ci ci li ngay dox ndax euh, atte yi ci la nekk doxin wi tamit pour mu rafet faaw nga euh, boole ci feq bi nga xam ne moo ñuy atte te it lu baree bari ci sunu diine moom moo ko leeral waaye sëñ Massamba dañuy jàlla rek ci ci beneen tomb waaye ci sëriñ bi euh, ndax ku ne xam na ne sëriñ bi bi mu jógee taxawal yoon wi wala tarixa dul muridiya taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ak soññe yi ñu ci doon soññe waaye lépp rek mi ngi ko fonde ci tasawuf ñu dellu siwaat ci point boobu. jërëjëf sëñ Badara Sëriñ Tuubaa dafa sonne xam-xamu tasawuf ndax tasawuf daa bokk ci asaas yi fondement yi nga xam ne moo fonde yoonu murit yoonu murit dañ naan ay fondement am tasawufa ci jiitu ndax da ko tënkee da ne mubaad yi mooy principe yi nga xam ne moo tënk yoon yi moo ko téye al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabul mardi xam-xam bu am njariñ ndax moo composé yi ñu doon wax muy tawxiid fiq tasawuf waaye jëf xam-xam bi day ànd ak pratique day ànd ak jëf e ak teggiin yu sunu borom gërëm mooy e, taalibe bi wala suufiyanke bi day am kersa digganteem ak boromam ni nga amee ay teggin sa digganteeg nit ñi noonu nga amee teggin sa digganteeg boromam ba boo làqutoon ci néeg gëm ne am na lu lay muraqaba lu lay fuglu la nga fay def lépp mu ngi koy gis nit ñi gisuñu waaye loola ma ngi lay gis Eh, ay teggiin da caa bokk kon tasawuf mooy fondement tariqa yoonu murid nag da ko tuddee tariqa tariqatu al muridiya suufiya la sunniya la tajdidiya la mustaqilla al jaamia allati tartakisu ala al imaan bi tawxid wal islam bil fiq wal ihsan bi kon yoon la woo xam ne muridiya la ko tuddee wala baat bi sax ñu bari nee nañ eh, ñoo ko sos waaye eh, ay taalibeem noonu lañ leen di woowee waaye soofiya la waaye da koo teg ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa dikkoon ngir tëj ji tamit ngir yeesal diine ci waaye tamit lu beru la loo xam ne dafa wuuteek turux yi ci des am nañ ak wuute lool waaye bu boole la mboolem li am njariñ jaami maani taarifam daa boole li am njariñ lépp waaye génn lépp lu ci bokkut kon da ngay def farata ba mu jeex takk nga def sunna ba mu jeex takk nga def eh, eh, li ñuy wax tatawoo muy coobarewu muy man duubaat yi Euh, mag ñi am na ku ko ci doon wax sëñ ma bànji bu ma ko bu ma bu ma juumul ne ko foo jóge mu ne ko jóge naa dëkk sàngam dem dëkk sàngam dem mu ne ko lu tax su ma leen laajee ci ay dëkk rek ngeen may foo jóge li ma bëgg nga wax ma ko mooy ci farata laa jóge dal ci sunna noppaloo ji ca man dub tasawuf eh, ay tatawu aad la boo gisee wirdu yi fi mu ko dugal digg ginnaaw tàkkusaan ak suba nawaafil raatib amu fa sunna amu fa fa am vidd foofu la ko dugal kon da ngay def farata ba mu jeex takk nga def sunna ba mu jeex takk waaw bëgg nga ñàkk temps maanaam loxoy neen lañ dawut nangu loxoy neen lañ dawut nangu kon nga gis ne kon tasawuf mooy fondement tariqa eh, tariqa Serigne Touba radiallahu anhu kon daa woowoon taalibe yi tamit jëme leen ci xam-xamu tasawuf ndax xasida ki mu tuddee al gi mu tëggee allahu muhammadu maa ngi koy gis ci buntu saal be ad'u ilal ilaahi la ci wax bi tawxiidi wa ma raaytu anhu min maxiidi lillaahi addoo bi tafaquhi bila maylin li gayrihi wa kulli qabila lillaahi addoo bi tasawufi ma an makaarimul axlaaqi wa huwa samia kon li woo taalibe yi mooy fiq tawxid ju leer fiq tasawuf kon loolu eh, mën nañ koo jukki ci di wane ne yoon wi kon yoonu tasawuf la donte ñu bare bari eh, xamewuñ ko noonu waaye yoon wi yoonu murit yoonu tasawuf la tasawuf nag mooy wérd waaw mooy wérd mooy da ngay ni ma ko waxee dangay topp farata ba mu jeex nga dem ci sunna ba mu jeex nga topp tatawoo kon amul lu luñ koy jamee wala luñ koy boo doon wax da nga naan julit bi mat ba motti mooy suuf yi ki mat ba motti nga xam ne mboolem lu lislaam di digle rek la ca gën la def sëriñ bi loolu la na moom ci aw yoonam muy tariqa tasawuf kon na loolu doy na ci eh, baat boobu ci tomb boobu macha allah euh, sëñ euh, Massamba kaddu yi am na solo loolu wax dëgg yàlla li ngay wax xëy na leer gi mu leer moo tax xëy na duñ ci sawar sax di ci jaaraat yenn détails yi waaye daal li liñ ci mën a jàpp daal mooy xam nañu ne moom sëriñ bi euh, ñoroon na ko te suuf ñoroon na ko lool ndax boo xoolee yittiwoo woon na ko waaye li gën a am solo rek mooy. cëslaay li nga xam ne moom la ko moom la moom la jiital ci ci ci yoon wi maanaam moom la fondement wee yoon wi ci tomb boobu nga doon nga doon nga doon jeexale sànq waaye bëgg naa ñëwaat ci beneen laaj mooy sëriñ bi xencu gi mu doon xencu téere tasawuf yi nga xam ne loolu xëy na ci njëlbeen gi la ba loolu xëy na mën nañoo jàpp ne moo ko poussé mu gën a sóobu waaye tekk yoon wi ci yoonu tasawuf jërëjëf sëñ bi sonne woon na lool kutubu suufiye yi e, sonne na ko coono boo xam ne dajale ko ngir li ahlu tasawuf borom xam ne tasawuf bindoon li jiitu woon li ci bind ko dajale ko di ko liir ànd ak di ko di ko di ko dajale ci ay bibliothèque wala ay bërëb ngir ittewoo gu mu ittewoo téere yi ndax téere yi ca nga mën a xamee dëgg gaañe yoon wañ jaaroon la jiitu ca la ko tàmbalee ci Seyxu Suyuux imaam Junaydi donte noonu suñ Seyxu Suyuux mooy Serigne Touba radiyallahu taala anhu waaye la ko tàmbalee foofa di wàcc téere yiñ ci bind yépp wala yi ci gën a siiw yépp da ko doon wutlu di ko dajale e, di ko liir di ci sonn boole jóg di siyaare ji mawaadixu saalihin nit ñu baax ñi bërëb yi ñu leen denc xam nga Cheikh Sidiyel Kabir ba mu koy seeti ca gànnaar di ziyaare ji barabam eh, di ziyaare ji gox boobu boobu Cheikh Mouhamadou Bara mi ngi door a gane jamono kon loola yàgg na lool mu yàgg ittewoo yu mel noonu di dajale téere yi eh, di ko am di ko liir comme ni mu ko waxee eh, loola misaal mi ñu gën a joxe mi gën a jege rek mooy kii daf koo nettali Cheikh Mouhamadoul Bachir dafa ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko ko wax ak bàyyi taxam sëñ ma sàmba ne ko sëriñ bi de li nit ñu baax ñi bindoon ci tasawuf tem siiw te ñu xam ko téere yi nga xam ne xam nañ leen néewaa na nga gis bu mu ci liiru ay yoon yoon bu mu ci amul woon nga xam da koy wutlu fu mu mën a nekk yenn yi Égypte la koy jëndaloo yenn yi Mauritanie la koy jëndaloo ñu jëndal ko ko indi ko yenn ñu sëf ko ci ay giléem yenn ñu sëf ko ci ay bato waaye dana dikk ba agsi ci moom nga xam ne téere yi yëpp daanaka ci bari teg na ci bëtam mooy tax lim mën a taalif ci tasawuf mu xam fu muy jaar wan yoon lay jaar moom ngir mën a jàngale eh, eh, lu ngir mën a talxiis tamit ngir mën a tënk ko Masaalikul Jinaan ab ab talxiis la ab régime la daa fekk liñ biddoon ci tasawuf lépp daanaka la ci ëpp solo mu jël ko woy ko ci eh, junni bayit wala lu lu teg tuuti kon loolu la muy wane mooy sonne gum sonne woon Euh, téere tasawuf yi ak nit yi tasawuf yi ah Chadali euh, yi def naa def na ci ñoom diggante bu bu yàgg-yàgg seeni téere mu liir ko ku mel lu mel ne kutubu ibnu Ubbad Zaruq ibnu Ataillah bu dee ci Tijaani Jawahirul Maani bu Cheikh kitaabu Rimah bu Cheikh Mar ak Jeysh lu mel ne euh, Yaddaali ibnu Mattaal saaxibul Quut téere yooyu yëpp sëriñ bi daf ko amoon saaxibul Maddaqal sa Ihyaa Ulumuddin yëpp da ko amoon ak li ñu nettali ci imam Junaydi ak sirri siqti ak maaruful kurxi yëpp da ko amoon yor ko loolu la muy tegtali moo itteewoo itteewoo woon yoonu tasawuf kon ba tax bi muy woote ca la woo taalibe yi eh, jëmale leen ca kon moo tax taalibe bi war a fonk lool tariqatul qawm li ñuy wax tariqatul qawm kon loola mën naa ko jàppe kon ab jukki bu ma war a bu ma bu ma war a leeral foofu rek waaw kon ibnu ataay la dalaayul yu bare bari eh, ni mu ko defee ci tasawuf ni la ko defee ci fiq muxtasar xalil da koo mokkaloon Cheikh Ahmad Basir nee na sëñ Moon Moussa ko nettali ak sëñ Masamba muxtasar xalil bii nga xam ne madhab Malik moo moo moo tënk fiqu madhab Malik sëriñ bi da koo mokkaloon am na ñu ne saraa ko sax donte gisuñu ko risaala bu Abu Zeyd al-Xayrawaan téere Sanusi yooyu yëpp tabarakallah da ko amoon kon loolu doy na sëkk ci macha allah macha allah sëñ Massamba ñu ngi am mbégte lool ci kaddu yi jaajëfal nañ la bu baax a baax waaye eh, bu ñu eh, jàngatee rek tomb bi nga mujj eh, wax rek mooy téye gum ko yittewoo woon day wane ne sëriñ bi li muy def xam na fa muy teg tànkam maanaam làmbatuwul ndax ni nga waxee mel na ne def na ci temps bu baree baree bari ngir gëstu ko waaye jaraloon na ko lu ne. bay wayaat yoo xam ne sax xëy na téere yoo xam ne nit ñi fàtte woon nañ ko mu jël ko di ko tënkaat ngir bëgg nit ñi mën cee jariñu kon loolu liñ ci liñ ci xamee daal mooy sëriñ bi xamoon na bu baax a baax a baax euh, li nga xam ne moom lay def ba waral mu mu mu jiital ko ci yoon wi euh, beneen laaj bi xëy na euh, li ñu dese ci waxtu bareetul mooy ku ne xam na ne am na ñoo xam ne xëy na ñi ngi ŋàññ yoonu tasawuf wala niñ koy xoolee bokkul ak xëy na niñ ko war a xoole ñooñu sëriñ bi lan lan lan la wax ci ñoom jërëjëf sëñ Badara sëriñ bi mooy tandikuloo woon na lool taalibe yi ko topp ñuy neenal tasawuf ci boppam di ko bañ a jox yitte li mu bëggoon mooy ñu jox ko yitte kon daana leen mooy tandikuloo loolu lool sànni tasawuf ca ginnaaw mel ne soo koy wax nit ñi léeg-léeg dañuy dañuy dégg dañuy jàpp ne lu yàgg ngay wax fekk li ñu nekk mu yoonu murit mooy yoonu tasawuf waaye duñ ko xamee noonu kon loolu ŋàññi woon na ko lool ba xasida gi mu tëggee yaa ayuha yaa ayuha naasu ubudu rabbakum yéen nit ñi jaamu leen seen borom boo demee maa ngi ci wax waylun liman zahida fi dikri wa fi wa fi lfiqhi walxadithi wa tasawufi alkande wala xuru mbugal ñeel na ki nga xam ne dafa dëddu wan ginnaaw téere bi ak fiq ak xadith ak tasawuf kon yooyu yëpp dañoo doon benn maanaam eh, pour nga sóobu tasawuf faw nga ne ci yooyu yëpp boo demee ci maxaaliqu niraan tamit wax na ko fa sàggane tasawuf bu ko benn murid def wala takun muntabida sharia fa nabduha ila rada daria sharia bul ne dama jàpp tasawuf sharia sama yoon newu ci comme ni ko ñu bari di waxe boo waxee julli ñu ne seen yoon new ci koor seen yoon newu ci ci baree baree bari nee na bul sànni sharia ca ginnaaw loolu alkande lay indil ci alkande lay yóbbu ci kàmbuk alkande la lay daaneel di wax ne alquran mooy doon sa man lam yakun yu annisuhu alquraanu fa innama yu annisuhu cheytaanu te ku ray fiq ray xaddiis la ngay dundal mooy lu bon rek lu bon rek ngay mën a dundal wa man amaata alfiq walxadiisa fa innahu qad ammara alxabiisa te ku bàyyi tasawuf wan nga ginnaaw ak njub foo mën a jëm tamit ci cànku te nga jëm wa kullu man qad taraka tasawufa fa innahu an il uda eh, tasawufa kon loolu wax ju leer a leer la ci ay waxam Euh, tëb dal ci kaw ñi nga xam ne euh, dama ko boolewaale ko rek dañoo raddu tasawuf dañoo dañoo dañoo ŋàññi tasawuf dañoo ŋàññi tasawuf xëy na ñii ŋàññi tasawuf it damaa jàpp ne tasawuful baatil la ñuy ŋàññi waaw tomb bi ci topp tasawuful baatil la ñuy ŋàññi waaye tasawuf sunni moom bi sëñ Tubaa nekkoon damaa jàpp ne nit waru koo ŋàññi ndax nee naa la da def farata ba mu jeex nga topp sunna seen système lépp ba jeex nga door a noppaloo ji ci tatawoo coobarewu kon kooka jàpp naa ne kon ñi nga xam ne dañ ne tasawuf wérut bi si si fa ama dàq tasawuf yépp ñooñu sëñ Tubaa daf ne dafa waxal wax waxi boppam ne xult wax naa man sëñ Tubaa ne maas gii ci jamono jii de dañoo réere xam-xamu tasawuf neenal aw yiwam et dañoo réere tamit ne yoonu tasawuf moo la yóbbu ci xadratullahil quds ca xadra borom bi subhanahu dañoo réere tamit ne tasawuf mooy xayra doxri mooy ngën gi ndaxañteef li nit di wut ci àdduna ak àllaaxira ci lu baax lu mën a doon mooy tasawuf li suñ borom di fayee ca yow mu taxaabun bisu penc la ca gën mooy tasawuf dégg nga daale ne dañoo réere ne tasawuf mooy ngën gi xam-xam xam-xam yépp ci gën ndax mooy sellal sa digganteeg sa borom kon taalibe bi ci la war a jeexal ak dundam tàkk daal dañoo réere ne tasawuf mooy lii tax nit ki am istiqaama ak njub tege ci yoon moom rek mën a teg nit ki ci istiqaama daal di koy way ne qultu fa fa jiilu fa jiilu da zamaani jahilu ilma tasawufi fa xayran ahmilu id jahilu bi kawnihi sabila li xadratillahi fa xaabu jiila wa jahilu bi kawni xayra duxri yowma taxaabuni id ilhawlu xadar wa jahilu bi kawnihi xayra alulumi yafni lfata umrahu fihi umum wa jahilu bi kawni istiqaamatan wa manaahu lfata min almalami kon ñi nga xam ne dañ koy diingat ci jamono sëñ Tubaa nee na kuy kuy diingat tasawuf da nga da nga nuur ci bàkkaar bàkkaar yi gën a mag kabaayir yi booy faatu moom ngay faatu waale waliyaatu billah kon loolu lu garaaw a garaaw la wa kullu man yaduumu daa inkaarin bihi madad dahri bil istijaari te jajjoo benn yoon fa innahu yamuutu bil israari alal kabairi bi baar yi kon loola la muy tekki mooy am gu eh, xam-xam bi am solo ki koy diingat xay na tasawuful baatil moom annonce dénoncé woon na ko ca masaalikul jinaan wan ne lan mooy tasawuf bi nga xam ne baatil la ay caaxaan la waaye bii dëgg tege ci sunna moom ci la nekkoon waaye wax na bi baaxut eh, Sida Hadj Malick it boo demee ci kifaayatu raaxibiin noonu la ko leerale kon mag ñi leeral lañ lan mooy tasawuf bi baax bi tege ci man e, manhaju yonent bi sallallahu jàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon tomb boobu wala ñaari tomb yooyu kon Eh, loolu laa ci topp macha allah leer na leer na naa ñi mel na ne kon bu buñ ko déggee mel na ne képp koo xam ne da koy diingat rek xëy na eh, ñàkk xam rek moom moo tax ma di ko diingat ak ñàkk gëstu ndax sëriñ bi wax li eh, gëstu na ko jox na ko yitteem ba xam na ci loo xam ne képp ku ko xam da nga da nga soobu ci yoonu tasuuf kon mel na ñu ngi ñuy signalé waxtu wi jeex na laaj bu mujj bi nga xam ne moom la ñu fas yéenee jeexale waxtaan wi mooy sëriñ bi ak soobu gi nga xam ne moom la soobu woon yoonu tasuuf sëriñ bi radiallahu anhu sóobu gi mu sóobu woon yoonu tasawuf euh, wax naa ne boroom nafaxatul miskiya asiratul bakkiya ñu di ko wax euh, di ko dàkkantale as seen xeet yi rek ci gàttal moom ba mu jàngalee tasawuf sëñ Tuubaa euh, ponk yim tënk yim sukkandiku ba pare ana moo bind fatxul kaafi albaqil mumit fi sarfi tawajjuhi kulla mubaarisin yamut nee na bi mu gisee xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne yakunu fi axiri zaman ubbaadun juhaalun wa ulamaun fusaaqun bu ñëwee ba ci mujjug jamono danañ gis ay jaamukati yàlla yoo xam ne duñ xam dara ci fiq duñ xam dara ci diine waaye danañ gis boroom xam-xam yoo xam ne ay saay saay ay kàccoor la ñuy doon nee na ba mu ba mu liiree ba mu gisee wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooja ci la wëlbati bibliothèque am lépp téere charia la cay def tawxiid fiq tasawuf tawxiid fiq tasawuf kon sëriñ bi ca loola la nekkoon sóobu gim sóobu yoonu nit ñi yoonu gaa ñi e dafa jàpp dafa dafa shiddatu tamassukihi bi shariatul mutahara wala haqiqatu munawara tar gi mu taroon ci jàpp gi mu jàpp sharia ju laab ji ak dëgg-dëgg haqiqatul munawara muy tasawuf mooy e dafa gis ne tasawuf léppam xifdul e anfas la loolu mooy lan mooy dabtu waxtu maanaam nit ki tënk tënk temps temps bépp mu sacrifier ko jeexal ko ci ak jaamu yàlla ñoom noonu loolu lañ gis ñoom ñàkk temps sa temps bépp nga jeexal ko ci jaamu yàlla looy def rek ci jaamu yàlla ngay jeexal sa waxtu yëpp e mu ne ahlul xaqiqa ñoom daawuñu génn ci xaddu sharia maanaam nit yi tasawuf yi luñ mas a def rek ci sharia lañ koy teg luñ def rek yow mi koy gis yaa ko xamut waaye boo leen ko laajee ñu leeral la ko ci sharia donte daf dafay niru leek léeg lu wuuteeg sharia waaye fil xaqiqa sharia rek lay doon waaw ñoom xam nañ fi ñu ko teg sëriñ ba mu waxee loolu da caa teg laaye ji borom bi di wax wa kaana waraahu malikan yaxudu kullu safinatin xasba xam nga xudar bi mu àndeek muusa ci gaal gi bënn lu gaal gi e, daf dafa jaaxal Moussa gaalug jàmbur gi mu yóbbaale nu nga di ko bënn ndox mi di ñëw ñuy tànq di tuur waaye la xudar gis te du yonent Moussa Moussa eh, di yonent te gisu ko mooy dafa gis ne ci ci teeru bi am na buur bu fa nekk bu dëng boo xam ne bu ñu dikkee day nangu gaal gi gaal gu rafet gu fa jaar mu nangu ko léegi na ko bënn ba gaal gi ñaaw ba du ko nangu te pour pourtant Moussa mooy yonent bi te gis loolu xudar di ko gis te xudar du yonent nitu yàlla la waaw loolu rek loolu lay tegtale mooy eh, topp gi ñu topp charia ba mat sëkk dañoo jaamu yàlla nu nu kenn jaamawut yàlla moo tax yàlla ubbil leen ci eh, buntam yépp Eh, dafa daan jàngale ne jullit bi daal dafay nekk ci diggante ñaari kaso yi kasob sharia ak kasob xaqiqa dégg nga eh, sharia da koy tëj walif ak mooy yàlla waaye xaqiqa maanaam eh, da koy xaqiqa da koy tëj walif mooy yàlla ak biir sharia nag mooy yàlla ak biti la koy tere waaye xaqiqa mooy yàlla ak biir xam nga dafa am feebar yoo xam nit da koy am ci xolam muy iñaan rëy naw jëf puukarewu bëgg daraja bëgg siiw yooyu ay feebar la tasawuf nag moo koy faj mooy médecin bi koy faj yi ci des nag yu zaahir yi jaamu yàlla ak zaahir gi moom fiq a koy lijjanti waaye tasawuf xol moo tax ñoom ñaar dañuy ànd foo leen fekk benn mënu ci beddiku ba morom ja ndax nit ki bu kawam rafetee muy julli di jàpp sonn jaamu yàlla ak zaahir te biir biiram bon lool feebari xol yépp ne ci moom benn la ci fajut ba mu wér kooka ëllëg bu dajeek boroomam jëf cëpp day du am benn njariñ looloo tax sëriñ bi ñaar yooyu la boole woon ci li may tëj rek muy baat bu mujj bi euh, daana wax ne li ma leen digal mooy zahiru sharia ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa képp ku ci topp ah kooka fu mën a nekk ma ngi ci sama ndigal waaye képp ku ci topput fu mu mën a nekk sequt ak man dara kon loola yëpp ay ndénkaan la yu mu daan joxe di wane ne moom ci yoon wi muy jaamoo yàlla ci fiq mooy Malik madhab Malik waaye ci tasawuf ci yoonu gaaña tasawuf la jël moom ci aqiq ci ay ci xaqiqa tasawuf la jël kon ñaar yooyu eh, loolu lay tëje incha allah di wax ne eh, loolu mooy eh, fi ñuy yamale kàddu gi incha allah comme que waxtu wi dafa gàtt macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Massamba Sylla ci waxtaan bu am solo boobu euh, ñuy fàttali ne thème bi ñu jëloon mooy Serigne Touba ak tasawuf waxtaan na ci wax dëgg yàlla euh, point yu am solo tomb yu am solo macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax te di la sant euh, di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo ni bàyyi xel di leen jox rendez-vous rek ci sunu yeneen jataay incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu